tey mën ne Benno Bokk Yaakaar yi fi teew ndax maire yaa ngi fi ndax dégg naa ñu ne soxna na bu fu ngi fi responsable te ñoom dañu mooy ñi man ci politique mooy jigéen ñi jigéen ñi ñoo man ci politique ñoo man ci développement ñoo gën engagement benn dayoo mel nii soxna Sëñ Mbàkke suñu xarit suñu soppee suñu sëñ kon dañuy am mbégte teew fi tey waaye nag di leen di nuyu bu baax a baax fi teewal responsable yëpp ñu ràññee ci bu baax soxna Pape Diagne ministre de la femme ak ñi fi teewal tous les responsables de la coalition kàddu yi ñu gudd kàddu yi cant la remercier leen bu baax ci initiative bu am solo bi ngeen def waaye tamit remercier leen seen taxawaayu démb ak seen taxawaayu gënu démb ndax tey fii ci département surtout au niveau de la commune de Touba jàpp naa ne résultat bu fi mën di am seen loxo seen taxawaay seen ñàkk seen alal jëlu ci yéen ci ngeen jox kon dañ leen sant bu baax di leen remercier ci seen jàpp ak seen jàppale waaye tamit di leen ñaax di ñaax tous les responsables ñu ànd lëkkaloo nekk benn ndax li ñu bëgg ci département bi ànd moo ñu koy benn moo ñu koy may jàppalante moo ñu am taxawaay bu rafet moo ñu koy waaye lii gis suñu xol seet dal na kon nag ñu leen di remercier waa di leen sant sant leen sama turu bopp waaye sant leen ci turu délégation bi ma du di ñaanal baax suñu bunt sëriñ Touba sëñ si Ahmadou Mbacké Sanyo di ko ñaanal baax di ko sant di ko gërëm ñaan yi na bu baax taxawaay bi mat na ñu ngi koy ñaanal ci barke Seex Xaadim yàlla na ko fi yàlla bàyyi te mu toog sa aar di ñëw sama mbokk jigéen yi nag. maa ngi sant sama mbokk jigéen ñi bu baax a baax di leen gërëm di leen sant seen taxawaay ak seen engagement ci président Macky Sall jigéen ñi jàmbaar yu dëkk Bawal jigéen ñu am engagement yu am gëm-gëm yu am jom yu am fulla man nag jotaay bi béttu ma woon ci jigéenu commune Touba sur département de Mbacké commune Touba yéen mënuñu leen a fay président mun leen fay am ngeen gëm-gëm am ngeen engagement te xool leen daal du ngeen yàq du ngeen toog kon nag ñu leen sant bu baax ci taxawaay bi ndax kenn mënul dara mboolooy doole te lii ban ko tàmbalee ba léegi ñoo ngi yéen ñoo ko ànd ngeen def seen alal ak seen doole ak seen ñaq ak seen xel mat kon nag jaageen jëf jigéen ñi jërëgeen jëf jigéen ñi monsieur le ministre Galawa Mm-hmm. di la sant bu baax di la yokk mm-hmm. di la sant ci sa taxawaay wetu président di la sant sa taxawaay ci sama di la sant suñu place yeeg saadaaka la bu baax a baax ban tàmbalee mbir moom moom moo la boo nekk xel alal la loolu daan toogoon ñu ba ay trois heures du matin te loolu nekkul jàpp yow suñu baax dañ lay sant di la gërëm di sa taxawaay ci jigéen ñi sa taxawaay ci bépp président yàlla na la yàlla oy ñun jigéen département de Mbacké ñu fas naa Macky Sall bu nee weex na ñu nee weex na bu nee xoox na ñu ñu loolu mooy suñu candidat mooy suñu leader di gën a dénkaan jigéen ñi loolu war naa xoolaat taxawaay jëpp jigéen ñi ndax ñun jigéen ñi te jàpp naa laaj ko na ñoom moom moom moom desee ndax heure bu jigéen jigéen ñee ci ginnaaw jigéen ñee wati jigéen ñee feesal baax yi te jigéen département de Mbacké jigéen ñi sonn nañ de kon nag nanu gees te jàpp nañu te na nag damaa jàpp moom comme xooloon na sama càmm yu baax yi nga xam ne ñoo dañu ko ci département lu ne dañ leen ko ndax isin ko jigéen ñi jàppale ñu jigéen ñi samp jigéen ñi dooleel jigéen ñi ndax jigéen kat xorom la ci bu baax bu jàll jigéen ba nag président naa ne xaw na jàppaat jigéen ñi dépendement ñu ma ko yónni président jigéen ñi sonn na jigéen ñi sonn na loolu dafa njaay ka daa am lu baax dal na ko ñëw sax aaw doomay ñaari kon nag des jigéen defar maa ngi ñun nag mooy suñu tànn doon leen taal bu ne xaw ma ne ñu ne xaw ma na ne ne taal moo la bi tey wéyee ndax dañ naan jigéen defar maa ngi àndu ànd na noonu lu doo dooleelu ay nit bu ñu leen dooleelu àndu ma nag dañ ñoo dooleelu benn jigéen am doole amul dooleelu sa kenn jubóo na dañ ñoo bu ñu dooleelee ñu ko gañe département bi joxante loxo dafa joxoon nañ loxo nag fas yéene taxaw